xam nañ ne ñu bokk réew mi yëpp ñu doon bokk di jullit yëpp xam nañ ne xam gis nañ ñu yëge sëriñ bi. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ak di am mbégte bu baax a baax ci topp ki ngeen ñuy topp ci seen biir tey nag ñu indi leen wax ju am solo ji nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké wax na ko di xalifa général des Mourides yàlla na fi yàgg te wér. mu yónni woon benn délégation fële ca euh, palais ca njiitu réew ma muy président Macky Sall ngir situation bi nga xamee ne ci la réew mi toll ngir waslu ci àq ngir mm, xamal kii di Macky Sall kàddu am solo yi nga xam ne yëkkati woon na ko ci jamono yële passé muy benn discours boo xam ne amaloon na ko ci jamonoy Korité ñu daat koy sotti def ko ci téere maanaam ay livre ñu traduire ko en français sëñ bi daat koy yónnee foofu sa fale ña jiite woon eh, bokk na sa sëriñ Bass Abdou Khadre Mbacke ak Baye Youssou eh, mi nga xamee ne moo njiital moo njiital isbu taraxee eh, ñoo demoon ca pale ba ngir joxe boobu livre bi nga xamee ne am na kàddu yu am solo yoo xam ne sëñ Muntaxa yëkkati na ko tey nag kàddu yooyu lañ leen bëgg indil ñu gis bu am solo boo xam ne maanaam sëñ bi yëkkati woon na ko ci jamono yi la passé ci situation réew mi ndaka la war a taxawee la taalibe bi war a nekkee ndaka lañ mën a boolee nit ñi ba ku nekk nungu sa morom diine ndaka lañ mën a wàññee tension bi nga xamee ne am na ci langue politique bi a euh, diggante opposition bi ak pouvoir bi naka la ku nekk euh, joxe sa moroom li nga moom naka la réew mi nekke ci dal kon tey di ñu ànd ak yéen di leen vidéo boobu wala son boobu ngeen teewlu ko ngeen ngeen xam wax ju am solo ji nga xam ne kii di xalifa général des wax na ko di la wax bu fekkee ne euh, gan nga seen bi te abonné go yu lay ñaan nga abonné te activé cloche notification bi ndax dina waral ba bépp vidéo bu ñu nga daal di koy am ñoo ngi lay ñaan tamit boo mënee nga semal ñu ci vidéo ndax dina tax gën koo mën di publier nit ñi da ko gën di mën di di kon li ñuy ñëw tegal leen waxtaan yi. xam na ne ñu bokk réew mi ñu doon bokk di jullit xam na ne xam gis nañ ñu mu sëriñ bi gis nañ itam ci digg ma boromam jox giñ ko jàq àqam. loolu yow xam ne am na ci lu wóor kon nag loolu noo ngi leen di